Assalamualaikum. Mala asman pak goto. Ma dalu punya kali ni yagale waxtan bi. Tama na kon ci yon ko adam ya Ma do yexi. Ah. Xam nga. dafa gudd dafa yàgg ku yàqamte ku ne doo da comme train la rek buy dem quoi boo xam ne amul destination wala amul ay arrêt quoi peut benn destination la am donc boo amul patience dëgg rek doo da ngay wàcc ko da wàcc loolu nag moom moo dal ñu bari Um, waa ji Mollah <laughs> c'est un faiseur de malin ku otin la ku arrogant la ku xamadi la ku réew la yéeg boppam xam nga ñoom seen famille dañ leen xamee comme ñu am feebaru metomani c'est des metoman waxuma la fenkat de métomane laa la wax métomane la dafa am maladie feebar la boobu faj ko du yomb ok frère bi nek France moko gëna graw c'est que ils dañu am dañuy fen dañu am plaisir di fen quoi comprendre euh bima defee affaire am yi salte yooyu commencé ma attaquer sans raison bi ma réagiré ñëpp dal sama kaw mere ma défendre ko saaga ma wax ma lu ne man ma garaaw ma dékku ma ne am problème nit ñi xamuñu quoi mais un e jour viendra da ngeen ci teg seen ba tôt tard da ngeen xam mooy kan waxoon naa lan ko léegi dafa utiliser patriote yi duuf après attaqué leen ok jox nañ ko xaalis Johnny Gojales monsieur noos mais xaalis boobu presque dëtt la quoi dëtt dëtt la quoi waa ji da doon wax ne opération rëbb dëmm ndeke moom mooy dëmm bi quoi <laughs> est-ce que comprendre c'est lui la ñooxor dëmm bi moom la moo tax moom instant bi il faut ñëpp patriote yëpp def opération rëbb ki doon rëbb dëmm yi quoi parce que dem bi mom la en ah, réalité parce que yëfu la def yëfu dem deug la def Ousmane Sonko ken do ko attaquer xam nga quand j'ai utilisé sama stratégie bo sama fameux stratégie bo ma def bo xam je l'ai même regretté ya, parce que war ko won def quoi parce que bu fekke kan, dafa am ñoko sekkal dafa am toujours noo wara euh noo wara comporto quoi parce que da nga war a xalaat say say say say jéego mooy jéego quoi mooy say jéego danga koy xalaat ok parce que je pensais que dinañ comprendre mais la majorité comprendre luñ quoi stratégie boobu et pourtant si c'était un peu intelligent rek war nañ xam parce que Macky Sall boo fa demee contrat bi ñu lay signaloo premier point bi mooy nga saaga Ousmane Sonko te leen maa dégg ma saago Sonko mosuleen maa dégg ma wax dara lu ñaaw ci moom mosuleen maa dégg ma publier dara lu ñaaw ci moom nii image nii vidéo nii quoi que soit loolu rek waroon na leen dute pourtant moom il l'a fait biñ ko dee xaalis a nii rek il l'a fait daf koo def comprendre nga dañ ne ko xaalis a nii rek daf koo def dafa saago Sonko parce que publier image boobu moom war na xam ne sax xam montage publier mais comme dafa laal fait amul choix il est obligé il est obligé mon def comprendre c'est la que c'est que fin la c'est que nit coup bon la xoolal ak wa keur gi dem voyage Monsieur. Euh, contrat bu ñu am Espagne gars yi def seen concert seen affaire seen contrat jeex ñu war a ñibbisi moom mu toog foofu topp foofu benn maagaru tubaab noonu la yàqay projet wu ak programme mu groupe CREC moo tax ñu koy woowee xàññu les gars yi ñoom kilifa ak caat continué seeni affaire continué yàlla dafa leen succès vraiment sénégalais yi bëgg leen trop ba pare ñu teg ci nekk ay vrai patriote nekk ay vrai activiste nekk ay membre fondateur yu Y'en a marre xam nga ñafe quoi ñu jàpp leen fi tëj ak lu ne léegi nag moom gaa yi fàtte ko sénégalais yi fàtte ko mu def lu ne kenn faalewu ko comprendre na léegi ñu ne popularité boobu ñu am ak ak ak ak carrière activisme boobu ñu am moom loolu la bëggoon quoi ce qu'il c'est ce qu'il voulait quoi donc moo tax mu jaar sama kaw pour utiliser sama audimat pour que tey am place bi mu am ne quoi quand il l'a fait bi ma riposté patriote yi attaqué ma saaga ma quoi man a garaawul amul problème muy fëgg dënn quoi il est sale ba pare mu ne sa kër gi bi mu laqee nii te c'est sûr et bokk na ci ñu ko laq mu ne bu paa bi deewee sa garaaw dañ ko suuli rek quoi il ne respecte même pas ses parents ku mel noonu est que Pastef soxla na ko ci projet bi parce que man bugguma vraiment bokk ku mel noonu projet bi quoi parce que il faut nit ñi xam ne que Pastef du ay jeunes rek ñoo fa nag dafa am ay mag am ay xale am ay jeunes am ay demi jeunes am ay jigéen am ay kilifa couche yëpp a ngi si quoi donc tey waratuñu associé ak n'importe qui comprendre léegi nag moom def na benn publication muy jégalu na dañ ko en endur en erreur dafay fen waxul dëgg xam nga lan moo xew exactement parce que man bi may ñëw ci train bi léegi lañ ma xamal ne dañ ko wax pour mu publier benn poste pour excuser parce que boo xoolee publier li mu publier noonu un professionnel de comme moo rédiger boobu texte. loolu du texte, wu moo laa moo laa déggul tubaab ay fët rek lay def et l'on dit que mu négocier parce que mu ngi perdre audience et ils ont besoin d'audience audience non, audience boobu non, audimat boobu audience boobu non, dañ koo soxla parce que mon lañ bëgg utiliser comme nit ñi dañ koy suivre mon lañ bëgg utiliser plateforme mon lañ bëgg utiliser bu ñu commencé procès bi xam nga procès bi bu si Sonko demee ak demul yëpp te waru ci dem procès bi. maintenant am ah, et vont le tenir ce procès sen bakkan lañ ci tek léegi procès bi le fay bëgg fa wara jaar dafa war a jaar ci molla et vont donner des choses à molla pour mu publier ko donc Mollah fu mu tolné nii dafa nek de naxanté ak audience am pour ñu tok pour ñu baña dem parce que bu audience am togul tay gaay yi du ñu mën utiliser molla parce que dootuñu ko soxlo quoi léegi bu audience am demee na complètement du jot khalis xaalis bi mu waroon jot donc na patriote yëpp désabonné ci pasam partout loolu bu ngeen ko defee rek mooy c'est fini wa APR duñu am fu ñu jaar pour wax ak sénégalais pour yàq teru Ousmane Sonko man ça fait des années ma leen di wax que Macky Sall ak ay ñoñam ci complot Adji Sarr ak Ousmane Sonko kaa ils vont créer des vidéos Je leen xool samay live yu ma 3 ans 4 ans c'est gannaaw ça veut dire ay deux ans c'est gannaaw bi affaire bi amee ba quoi je veux dire affaire policiers vont les recruter plus de 5000 policiers dinañ les recruter gendarmerie, ñi examen bi affaire armée lepp waxon na lan ko affaire Israël bi lepp waxon na lan ko affaire terre bi lepp waxon na lan ko ak yeneen yeneen ak yeneen ak yeneen man naka la xamé won lolu yop lu motax man sama dal sa du morom mola man fima jaar ba aduna du mola du fa jaar ñima xam fima dugg li ma def ba aduna du mola du ko def. parce que ñu ay parcours ñu ay dessin sama slip sa mo gën papay mola gën balma ma ci waxam bi ba deug la. il a complètement na lii du période fu muy dem di yàq daru Ousmane Sonko di publier ay ay parce que dañ koo jox xaalis ay Doro Gaye boobu ay élément lam boobu nga xamante ne xaalisu askan bi la Marème Faye Sall di jox ah ñu koy ñu ci corrompe nit ñi quoi. te moom wax na leen boppam plusieurs fois ci ay laayafam am surtout dernier live bi bu ngeen ko dégloo da ngeen xam ne wax na leen boppam. koo xamante ni man bi ma koy jël fii nii di ko di ko yóbbu muy lekk dibi ci benn chambre bu salte la dëkk ça fait même pas quatre ans wala trois ans ok ñun ñu fi nekk plus de dix ans ak ñeneen ñi fi nekk plus de dix ans train de vie bu muy mënee nii en ce moment ñun mënuñu ko te ñoo ko dàq liggéey un million de fois ñi fi nekk depuis dix ans ëpp ko salaire ëpp ko situation gën ko baax la situation ñu def lii muy def donc ça veut dire xaalis bi liggéeyu ko ci koo xamante ni yàggul dara même pas ay quelques bu lekk jotee kër sénégalais yi fii lay dem lekk ceeb bi ba booyi dëkk ci gàll boobu di jooy parce que ceeb bi amatuñ ceeb bu ñu lekk. nga jékki-jékki commencé jënd ay yëru seer jënd ay mbaxana boo nee kiis bi ma eh, ma may la ko ah, jox ko GP mu àndil la ko ça veut dire jot nga xaalis boo xamante ni mosoo ko gis xaalis bi bari na ba nga xamante ni fi mu toll nii da nga ciy na dootul jeex. mais eh, xaalis bi du loo nag moom may saaga parce que moom nee na moom laay waxal mais dina ko regretter parce que fii nii du Sénégal fii Canada la ay message la ma envoyé turam di ci feeñ numéro di ci feeñ jox naa ko sama avocat du ma la gis nga moo dama ko porté woon plainte da doon problème yu sérieux patriote yi ñi wax ma bàyyi mais plainte bi retiré wu ma ko de barki salaatul fatiha billahi wal kitaab bi am na ñaari sénégalais ak sama avocat mun nañ seede lee may wax ni fan yi avant affaire problème yi di am damaa ne sama avocat na retire document bi ni li ni na ko retirer ci document bi quoi parce que li ni buñ ko ci baye day andil mola problème te buguma mu am problème parce que salatul fatiha ak aj màqa gema aj amna ñi may ñi fekke bi may wax le mun nañ ma sédé kon xam nga man sama xol dafa rafet sa way da pourtant lo bon la ma def fii non teewlu ma gedd xoolal kii na yow sa défaut moy da ngay tel c'est que yeen il faut ngeen comprendre benn chose fini koo xamante ni yaa ngi liggéey moo laa liggéeyul ay travail en noir lay def ba pare aide social la nekk man loolu du sama cas nekkuma aide sociale donc dama am ay responsabilité nga war a fay fi nga nekk war a lekk war a naan war a fay say facteur auto fii assurance fii yeneen ak yeneen ak yeneen kooku mënul nekk di def live chaque jour pour jox leen ay information yu fiable te ñi fi nekk xam nañ la di ça coûte très cher après léeg-léeg nga feebar fii hospitalisé fii ak yeneen ak yeneen tout à man damaa mën a nekk fii di def ay live chaque jour comme ce gala nga xam chaque dix mu def live liggéeyul comprendre c'est ça. ba pare moom du kenn duma ma wax lan la wara def ak naka la wara def ak yeen da ngeen tok fi ngeen tok duggal seen free whatever wala dugal seen credit di bëgg nit di len wax rek ngeen di deglu rek quoi nit koku non xana mom amul warul lek warul nan comprendre nit ko noonu bu toge nii rek journée bi nii rek ni rek deful dara sax mu nek ci eh, eh, yeen ya, di len beugal ak di len jot ay information yooyu ngeen di deglu rek après loas jot mu war ko fay fay ko ñu génne ko ci mbedd mi est-ce yéen ñëw yéen ñëw pour coko fu mu fu mu dëkk donc donc on peut pas on peut pas on peut pas rester là 24 heures sur 24 di leen ratatate mënul nekk bu ñu amee temps rek lañ koy def comprendre mais Sénégal moom bëgg nañ ko bëgg boo xamante ne lu ñu accepter kenn mu yàq ko projet bi waxna len ko du projet Ousmane Sonko projet wu Mamadou Dia ak Cheikh Anta Diop la Ousmane Sonko moom mooy troisième personne projet Ousse Souleymane Ba la après mu ñew ci lox la jor après mu ñew ci lox Mamadou Dia après mu ñew ci loxo moxo loxo Cheikh Anta Diop après mu ñew ci lox Sëñ Touba ci El ku nekk jaar na ci sa loxo d'une manière différente légui nak ci loxo Ousmane Sonko la nekk loolu kenn mënu ci dara comprendre donc nous qui sont conscients te gëm ni c'est une personne honnête clean dañ koy jàppale loolu kese la du leneen est-ce que xam ngeen ñi gën defendre défendre Ousmane Sonko bokkuñu sa Pastef xool nañ ko mel ni Dame Mbodj bu gars yi attaqué Ousmane Sonko fii bu <laughs> ba yi jaaxle moom bu génnee wax rek kulóo na bi moom buy génn di wax débat bi di tëj te pourtant am na ay ñeneen ñu cadre yu nekk fii nekk Pastef di rata tata chaque jour ñi di fenn fi nan ay banquier lañ wala ay sekk duñu ay banquier ñun xam nañ fu ñuy fu ñuy fu ñoom fu ñu liggéeyee ñun xam nañ ñom lan moy sen sen profession ak lan lan moy sen responsable fu ñu liggéey plagiat ya ay livre fi fenn fi ba dugg ci ay cercle restaurant Ousmane Sonko té amuñu benn audiment amuñu benn amuñu benn base amuñu dara xamuñu dara c'est des menteurs ay fankat yu mag man lo lay kaas gaay de bañ tapi orang semua moment non peut on regrette un teignon va oh ya de le meilleur très bien place bon quand là am lu ma bëgg ci ñom dama koy am mais je eh, suis pas cette personne suma ko défé suma tëddé duma tranquille sa way je suis donc foofu laay waxee donc laa daf leen di yootal en ce moment daf leen bëgg a foofu parce que d'ici le 2 le 3 la 4 ba fa ñu ñu jëm ni yëpp procès bi loolu yëpp la bëgg parce que va publier des choses affaire am jégalu bii nii il est pas sincère et puis jégalu boo xamante ne dafa ne waaw photo bi d'accord naa ne montage la mais euh, vocal bi moom la quoi mais li mu ci wax a gel bi sa c'est pas trop grave quoi tu te comprends est-ce que yaa ngi comprendre après mu ne bi on va vérifier. mais il se moque de qui ce guignon donc loolu mu wax sax moo gën a garaawate quoi donc mu ngi continuer di insister naan vocal boobu noonu Sonko la mu ngi continuer di insister na dinañ vérifier vidéo bi ndax Sonko la wala du Sonko il prépare quelque chose bu leen ko may loolu désabonnez-vous ngir yàlla ak yeneen bi désabonnez-vous lu dal Sonko yéen la lu dal projet bi yéen la réseau yi ku fi am doole yéen ko ko may moi y compris man su ma waxee lu ma war ta wax sax désabonné leen dem leen non Sonko kii nee ma gooto mbaa Sonko bu demee la de dinañ ko ko Sonko du bu mu ñu fontoo bu mu dem parce que nee naa ko Sonko yow majorité patriote nee nañ la bul dem donc force te obligé nga déglu leen comprendre nga respecté nañ la trop bëgg nañ la trop mais il faut nga déglu ñu quoi heure bi jot na nga déglu ñu ko moo bul dem bul dem bul dem ñu xool est-ce que ñoom dinañ la jël si est-ce que ils vont te toucher est-ce que dinañ la laal ñi nga xamante ni boo leen laajee ñu génnee seen xaalis jox la ñi nga xamante ni boo leen woowee ñu wuy si la ñi nga xamante ni loo soxla ñu ne la acca yaay yaay bañ majorité bi ne nañ la bul dem bul dem kon ñooñu dinañ la défendre ñoo dina jël seen bakkan tek ko ci sa buntu kër bala ñu lay ray ñoom lañuy ray ba noppi donc bul dem am nga procès bii nii cas bii nii situation bii nii bu fekkoon depuis dañ koo jaarale fi mu waroon jaar enquête bi depuis gendarmerie mu jaar fi mu waroon jaar euh, euh, euh, euh, certificat de viole bi médecin bi lépp jaar fi mu waroon jaar ñu respecté li médecin bi wax affaire bi dem tribunal dem ci juge d'instruction bi juge d'instruction def ay enquête tam ni mu ko waroon defee entendre ñëpp ñi mu waroon entendre ok à dire mu woo ñëpp ñi xam dañoo impliqué wu ci dossier bi ay Gabi ay maitre Diagne ay pataté ay patata ñëpp ñu déglu leen jaar yoon ok kon bu boobaa Sonko buñ ko woowee dafa war a wuy ji parce que loolu mooy yoon parce que audience dina am avocat bu nek défendre ce client ñu plaider andi preuve ak le nek ci ci ci ci ci ci ci enquête préliminaire ak lepp ñu tek après ku nek jël li la yoon may ñu joom fay seen te ñu ci wara tej tej tëj leen ñi ci wara eh, ndampay ñu nabay leen ñu ci wara amane ñu amane leen ñu wara libre libre ñu war purger seen peine purger seen peine lolu moy justice ñu xam amul dara lu politique lu ci nek mais dossier boo xam lépp ay fen moo ko lal te puis te puis gendarmerie la fen yi commencé boobu dossier du dossier bu sérieux donc ko warul ci respecté naara le deux même bu nekkul l'affaire Adji Sarr c'est l'affaire Mame Mbaye Niang moom amul pour dem ces avocats peuvent le représenter c'est que nit ñi il faut ñu xam lan mooy droit bu dee kriminal, criminelle oblige lay obligé mu dem mais bini, lool dossier bii nii te dossier bii nii Mame Mbaye Niang warul man lima ma yor ci wal kitaabu gel bumi tohan doxaan laa rus parce gel bumi sama nyes la quoi cest sama ñees du nyes bumi bokal bokkal me nyes ñees la sama rak la quoi comprendre nga kooku bugguma ko vilipender quoi kooku vraiment bugguma ko toroxal quoi parce que xale la ku baax la quoi comprendre yaayam ku baax la quoi te mooy jàppale yaayam quoi mais kooku tey su ma publier woon photo yi ak affaire yenn day am sa bugguma yàq viwu xale boobu kooku xale la quoi Mame Mbaye Niang il a rien à dire doomam Latifa bii nii ay millions la yor xale bu ndaw bu juddoogul bëgguma sax di dugal xale yi nii ci combat bi di tudd ay turu xale yi ay doomu jàmbur ak affaire yooyu quoi mais le train de vie sa waay du si papa du ci Sénégal suñu ministre yi bëri nga xamante ni seen papa yi ay baadoola lañu amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan ils viennent de famille très très très pauvre yore ay multimilliards Sénégal rek la am amul feneen ci kaw suuf ba ñoom ñu ne ñun du ñu wax. comprendre man foofu laay waxee donc en moment bu Sonko dem mais mënuñu ko wax bu mu dem ba pare ñu bàyyi ko ak combat bi c'est xam ko ñoom ils ont essayé avec beaucoup de personnes même affaire nit dof bi ba léegi sénégalais yaa ngi toog rek na teg mais Sonko moom bés bu ngeen ko laalee bés bu ngeen ko laalee cëy bu ngeen ko laalee xam nga sàcc bi dafa dugg si ci biir kër gi fekk borom kër gi toog jabar ji toog doom yi toog sàcc bi ñëw commencé jël télé bi yóbbu jabar na ko jaay sàcc bi jël na télé bi mu ne ko moom na jël lu ko neex <laughs> mais bu mu laal bu mu laal reer bi rek reer bi c'est très important parce que mooy dugg si seen biir ñoom ñu mën a taxaw mën a julli mën a tëddi mën a xippaaxul quoi sàcc bi jël lu ko neex waa ji ko moom mooy kaaw Macky Sall ak Sonko ak situation Macky mu ngi def lu ko neex kenn faalewu ko mais xam nga lu ñuy xaar mu laal Sonko loolu kese donc donc rek la xaar sama benn mbokk quoi sama mbokk la sama grand la un grand intellectuel nga xamante ne kooku imaam yi gën a mag ci monde bi ay Arabie Saoudite Azhar foofu la jàngee imaam yi gën a xarañ ci monde bi ah théologue yu gën a xarañ ci monde bi dañ koy nemmeeku man sama oncle bi muy tudd waaji conseil technique am kan, conseil spécial affaire yu bari oncle bi da ko doon consulter mu ne mu mu mu bind ma ne ma pourquoi tu détestes Macky Sall ma ne ko man magasin je le déteste pas pourquoi vous pensez que je déteste magasin je le déteste pas man déteste suma benn doomu aadama c'est sa manière de faire que je déteste c'est sa manière de faire la beauté que j'aime pas parce que dafa salte mu nekkee ci pouvoir bi ba léegi ay tëj ay nit toroxal ay nit rey ay nit Ah, ay affaire ay affaire yu bon rek mooy moom moo xew ci dëkk bi quoi jaxase na yëpp yàq na dëkk boobu complètement et ñun suñu maam yi li ñu liggéey ci dëkk boobu Macky Sall jël lépp sànni ko yàqu ko est-ce que Macky moom moo gën suñu maam yi xoolal suñu maam yi sagi sacrifier seen sang sacrifier seen lépp Macky jël na yëpp sànde ko ba pare yeen haalpulaar nga ne da ngeen na di ko dafa jël affaire bi bu ko dafa affaireu etni ko ethnie fekk du affaireu etni affaire bi affaireu u tay bu kenen nekkon tay bu Ousmane Sonko nekkon ci posture Macky Sall en ce moment sax man maay bokk ci ñu ko gën a attaqué dina dégg lu mu mësta dégg billaahi wal kitaab yi donc ñun dootuñu permettre benn doomu aadama mu mu mu ñuy manqué respect wala wala dañu troxal wala voilà voilà, voilà, wala voilà, voilà, voilà, voilà, wala voilà, voilà, quoi comprendre donc allez vous désabonner ci ci ci ci ci ci avant mu leen di utiliser ok merci